bi ñu ko joxoon mu réussir ko ba man cee joxoñ mbooloo mu bari moo xam ne ci moom lañu defaroo te duñ duñ xeex duñ gerew duñ sànni ay xeer bëggoon a ñëw nag ci jëmmi tasawuf moomu meññet mi mu jural Sénégal jërëjëf euh, sëriñ fallu ni nga tënkee laaj bi tubaarkal la daanaka damay wax ne boos ko tontu war rek sax émission bi jeex ndax fees na dell ci ni nga ko jaare xam nga seexul xadim ci wooteen bii nga xam ne dafa woote woote tasawuf bu tënku ci sunna xam naa ci gisinu sëriñ tu ci tasawuf sax loolu moom xam naa temu boppam la waaye bi mu ci wootee it dafa am lu mu digal taalibe yi mooy maa ngi leen di tënk ci fiq malikiya bu dee ci tawxiid ashariya bu dee ci lixsaan tasawuf mu mel ne ashariya pas-pas la boo xamante ne bu yaatu la. nit yi tasawuf ci ëpp ci lañ tënku. ndax may wax ne nit tasawuf yi daanaka ci maturidiya wala ashariya rek la tënku ci wàllu pas-pas. boo demee ci maliki yi noonu nga ko waxe Sénégal malikiya moo fi masa maase. loolu dañ ci dégg sax sëriñ bi ab rôlam ci wooteeg dëppoo. ndax mag ñi mas nañ koo laaj ci yeneen ngir yi. ndax moom daana daana jëfandikoo ngir yëpp. daanañ ko gis léeg-léeg mu jëfandikoo loo xam ne da nga xam ne lañ koy fekk mhm. léeg-léeg mu jëfandikoo loo xam ne waaye bi comme taalibe yi laajee daf ne yéen bu ngeen ma gisee may def lu juyoog Maalik yéen na ngeen yem ci Maalik nga xam ne kon loolu moom ndigal la mhm. lee jagale ak boroomam goo xam ne moom moom moo eggoon ci niveau booba di ko def mhm. te loola lam ca jublu mooy ngir taalibe yi tënku ci Maalik dafa bokk ci li benn réew mi bu xoolee réew mépp ñoo bokk ci ay ahkaam naan li ñuy attewoo woo ci charia benn naanu waaye tam mooy malikiya réew mi yëpp yi ñoo bokk ci pas-pas ashariya réew mi it la ca ëpp ñoom ci tasawuf la ñuy la ñuy euh, mandaloo ci seen lexsaan donte nag euh, tasawuf moomu diggam ak mag ñi loolu damay wax ne am na histoire bu mag buñ ci war a nettali waaye xëy na waxtu wi duñu ko may ànd ak ni xate te xëy am na yeneen yu war a jàll waaye mën nañoo gis ni tasawuf benn yëg-yëg la boo xam ne dafay pratiquer àddina ak alaaxira loolu nag ci wuuteeg ñi ko bëgg a déggee ne tasawuf mooy wan gannaaw àddina loolu Serigne Touba andi na ci misaal bu baax. Hmm. damay wax ne tasawuf mag ñu bari ci lañ tënku may man Serigne Touba ma gën a jege. moo tax ci laay joxe ay misaal. Hmm. lu may joxe. Hmm. boo xoolee sëriñ Touba juróom benni aspect yi nga xam ne bu fekkoon da ngay tudd ne am na asaas mu yoonu mu am nay fondement. da nga naan principe juróom benn lañ. juróom-benn yooyu dafa matale àddina ak alaaxira mhm. muy wane gi mu wane ne ku ànd ak moom nanga tënku ci xam-xam mhm. muy benn mhm. bu ñaareel bi it na nga tënku ci jaamu yàlla muy ñaar bu ñetteel bi na nga tënku ci di nangoo liggéey liggéey loo xam ne yow da nga ci euh, aare sa ngor ak man ci di joxe addiya ak la ca aju la ci aju dëgg muy ñett bi bu ñeenteel mooy na nga jaayante mooy na nga am ab sëriñ nga am waaw mooy ñeenteel bi bu juróomeel bi mooy nanga nga ànd akub yar bu juróom benneel bi mooy na nga nangu di def xidma xidma mooy lan liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi mhm. maanaam fexe bay jariñ jaami yàlla yi mu mel ne juróom benn principe yi boo doon tënk yoonu murit génn ko waaye dangay laaj nag léegi dunduk àddina ak gu àllaaxira ndax dana génn juróom benn yi mhm. da nga naan déedéet mhm. loolu moo jur nag tasawuf ci senegal lépp loo gis ci Sénégal ci aspect économique politique social lépp ba ci ba ci culture lépp waa tasawuf ñoo ko ci Sénégal moo tax saa boo nee damay gouverner wala damay taxawal dara ci réew mi ak lu mën a tudd <laughs> nga bëgg cee seeti tasawuf loola forcément day échec amul werante waaw loola forcément day échec ndax lu tax mooy li ñuy tudde tey baasu sénégalais gu ñu mën a xam maanaam li ñuy tudde culture mm-hmm. loolu nit yi tasawuf ñoo ko samp ci réew mi ba noppi li la koy firndee li nga junj léegi mm-hmm. mooy li ñuy tuddee kilifteef mm-hmm. xoolal bu baax tasawuf ni mu fexee ba nit ñëpp am kilifteef gu leen tënk wax nga ko léegi moom lañu rawee réew yëpp boo bu fekkee da nga euh, introsé histoire nga dellu tuuti ginnaaw ci jamonoy Léopold Sédar Senghor muy dund beneen diine tubaab yi ñëw defar ko ba mu jekk installé ko tegal ñu ko. imaginer bu ñu amutoon ay kilifa yi tasawuf oh. kon réew mi fan la jëm. dëgg tasawuf rek mooy mooy mooy ñoom ñoo am tasaamu li ñuy tuddee euh, cohabitation. Mhm. maanaam mën a xajonte. tasawuf ñoo ko am am gu toll ne mën nañoo dëkk akub yéefar jariñ ko te duñ loru ci moom. Mhm. mais beneen bu ñooñ benn danañ bañ dëkkoo ga ba fitna yeewu ca walla sax dañ cay loru bu fekkente ne nangu nañoo moom loolu nag bu ñu xoolee loolu rek mën nga cee jël baasub baasub li xettali Sénégal ba mu egsi fii mu egsi mhm. da ngay yëg ne dafa bàyyi ko ci tasawuf waaye ñu bàyyi xel it ne tasawuf bokk ci liy liy yar doomu aadama ba même bu yàqu woon ci kaw sax man ko mënees koo jariñoo ci biiram fi ne bu ñu gisee réew mi ni mu bindoo ak xeeti li fi ceddo yi estoré woon ni mu bindoo woon bu fekkoonte ne ñu ngi doon yore beneen pratique bu dul tasawuf naga ni réew mi xar na ñaar dëgg la waaye nit yi tasawuf yàlla def leen a dimbalee ñett yi gën a jafe mooy bu résister jotee dañuy résister dañ ko roy yenent bi kilta yadayhi lahaat sax yuntu la simuha baslun wa basun li man laanu wa man jaaw nitu tasawuf noonu lay dundee ñaari point yëpp dafa koy mane soo ko indee ci fitna dana ci pratique ak yow ba nga defee ne loolu rek la am waaye soo ko indilee ci jàmm yi day saxal jàmm dundal ko ba nga defee ne leneen amut noonu sëñ Tuubaa melalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nit ci tasawuf fii di dunde loolu moo sabab réew boo seetloo tey waxuma sax nga wax Sénégal mais histoire u tey loo fi gis ñu combattre ko ba mu tege ci yoon wala jihaad ju laaj deret mbaa mu laaj coona bu fi nitu tasawuf deful amut toppal na consulter histoire complètement lépp luy luy defar àdduna baa muy defar àllaaxira suñ demee ba mu bëgg am gàllankoor nitu tasawuf mooy jóg taxaw taxaw taxaw jàkkaarloog loola loolu nag moo dimbali Sénégal ñoom li leen yàlla may chance mooy dañoo ñëw rek seen i mag tënku ci tasawuf la léegi nag jamono ngi dox ñuy gën a xam liñ li ñuy jariñ askan wi malheureusement sax nag am na ci ñooñ seenu xëre leen ci dugal mais dëgg-dëgg gëstuwuñ ñoom dëgg-dëgg tasawuf <laughs> loolu sax moo ñu jural culture tubaab yi am ñoo xamante ne ndeysaan bëgg nañoo jubal waaye dafa am culture bu dugg seen bopp ba pare. ñu sàkku sax imaam Cheikh Baye jàppande moom mën naa jaar ci téléphone bi directement balaa euh, Serigne Saliou Ba di daaneel. nga xam ne bu ñu xoolee nit ñi ci so seen bopp ni ñuy dundee tasawuf nga xamante ne mm, ñu ci baree bari ci ñàkk jàng lañ ko teg waaye njiit yi ñu am ak kilifteef yi ñu am daf leen a jural ñu man leen a encadrer ba fitna du yeewu ci réew. moo tax damay wax ne. aspect économique xëy na bu fekkoon day yaatu ñu laal économique. ak ak ak tarixa yi. danañ ci ñëw. loolu loolu day waxuma ne sax ngay tudd turux yëpp mais boo jëlee benn tarixa bu mel ne murid ni mu bindoo. Mhm. da xam ne kenn mënta tabax réew mi te dugaloo leen économiquement. boo jëlee politiquement. nit tasawuf yi impliqué wuñ ci direct dugg ci. waaye ñoom ñoo téye levée bi saa bu naree tàkk. ñooy ñooy ñooy manipuler situation ba mu dal. Mhm. saa bu waree baaxit danañ waxe fa wax baaxe jëfe fa jëf baaxe ba mbir yi tege ci yoon crise yu bare bare bari yi doon traversé réew mi li ci génn réew mi mooy nit yi tasawu fii loolu loolu mën nga koo tudd ba ba ba ñëwee sax ci ci ci ci corona bi ñu weesu rek damay wax ne dama koy waxtaanee lu bari ne corona war nañ cee jàngale waat lu lu yéeme. Mm-hmm. Eh, ku tedd ki Serigne Mountakha. décision bi mu ci jëloon boo ko doon xool ci. Mm-hmm. waaw salaamaaleykum. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah euh, imaam Cheikh Baye waa sang bi ñu ngi lay ziar bu baax